Sélé mel ne Mamadou Moustapha Sall Dakar Sélé jël na ko booy bi am doole moo fi daan Modou Jam Téeri léegi hee waaw waaw Sélé expérience nga ko mën a jaay génne ko waaw génne waat na ko Sélé mel ne nante expérience baa bëri waaw waaw avertissement pour Mbaye Sakk Cheikh Sadibou Sele Mene Mbaye Jacques Sambou Sele jël na ko da daan daan na ko ndeysaan car macha allah euh, dafa am expérience compétition moom Sélé Sélé daan na Mbaye Diop Sélé mel ne daan na Mbaye Zak Mbaye Zak Samb Ziguinchor